toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp man mangi ngi euh, madame Marem Montero Diagne des initiatrice au Sénégal Ivoire. est-ce que vous pouvez ñu expliquer le nga xamante ci projet bi. Euh, projet Sénégal Ivoire nak, euh, projet moy li nga xamné moy collaboration bu ñu bëgg inshallah mu démarrer moy collaboration entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire spécialement ci domaine li nga xamné moy mooy jaay partenariat mom daal lañ woté ci diganté Sénégal Ivoire. lolu mo gëna tax tay ñu euh, daal di euh, def concept bi Sénégal Ivoire moy une première nak moy une première dans l'histoire tay moy ay femmes. muy euh, ay góor ñaari ànd manko nekk benn euh, dóorandoo xàccandoo defandoo lépp su ko defee incha allah chaque année concept bi mën a am su ko defee mu gën a mën a rataxal non seulement diggante bi euh, mën a gën a raxa rataxal li nga xam ne mooy liggéey bi ñuy def gën a raxatal lien bi loolu moo indi concept Sénégal Ivoire. at bu jot bëgg nañ ko def bii mooy première édition bi ñuy ñaan yàlla nag première édition bi ñu daal di ko amal ci jàmm ak salaam su ko defee incha allah jot ñu mëna def concept bi nga xamné moy mooy Sénégal Ivoire euh ma laajee côté autorité yi euh dina wax né peut-être suñu président ak tamit président ivoirien yëgu ko ko mais nag dañ ci lancé walé un appel mais côté euh, ambassadeurs yi très sincèrement muy ambassadeur du Sénégal bi nek euh, Abidjan muy euh, le général nian yegnako recevoir nañu

à Abidjan nous avons commencé nañ liggéey euh, di wax ci suñu événement muy ci rajo yi ak ci presse bi léegi luy kay peut-être ministère bi ministère de la femme ici au Sénégal ak le ministère de la femme à Abidjan de yow ni nañ nag suñu ay dossier ñu ngi des di déglu ñu ngi di euh, par euh, li ngeen fi nekkee sax par seen voix comme ni ñu waxee média muy lépp ndax ñoom yen yéenee fësal li nga xam ne mooy li am mooy ñu fësal leen ko am na benn groupement muy de femmes et ñuy fas yéene incha allah def benn partenariat bu am solo diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire ñu ngi leen ci woo ñu gis ñu ndax gis nañ partenariat bi nag commencé nañ ko Euh, la preuve FIDAK bi les invités d'honneur c'était les Ivoiriens mooy suñu mbokk Côte d'Ivoire kon loolu rek war ko collaboration bi commencé na am ñun nag si suñu wàll ñu ngi koy bëgg a gën a fësal ngala nag nañ ñu événement bi incha allah ñu demal ko ci jàmm salaam euh, at bu jot incha allah ñu mën ko def ci suñu ay euh, xarit euh, euh, pourquoi pas nak def ko tamit ci yenen deuk africain euh, expo internationale bi thème bi Sénégal Ivoire moy partenariat lañ bëgg nouer entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire rataxal digënté bi gëna jappalé suñu mbokk yi à la facilité de l'import export sénégalo-ivoirien mom mo tax mu ñu daal di créer concept Sénégal Ivoire. pour le moment bi ñu ngi koy gëna def ci tout ce qui est artisanat ak commerce bi comme lu ñu wax rek. looy def ci àddina rek benn benn la dañoo tegagum benn tànk ñaan leen yàlla nag comme li may wax projet bi bu yàlla defee suñu gouvernement yi muy ñaari gouvernement yi teg ci seen loxo ndax nag lu ay kilifa teg loxo gëm naa ne moo gën loo gis buñ ci tegee loxo incha allah waaw ci wàllu dinañ ci am wàll waaw euh, côté euh, coté d'Ivoire tay ñom ñu ñuy préparer le loo lo xamné moy ñom sen ada parce que ñom ñuy recevoir c'est la Côte d'Ivoire mom moy recevoir le Sénégal ñom tout ce qui est ñoom seen cosaan à seen aada culture bi mom lañ fas inshallah def ko ci li nga xamné moy mooy euh, dernière journée bi mu nek une cérémonie de clôture qui se tiendra le dimanche 28 janvier 2024 au Palme Club Cocody ñun nag lu ñuy yóbbu euh, déjà comme li ma wax étant donné que première édition bi euh, mbirum jënd ak jaay artisanat li ñuy wax ñun lepp lu ñu def fi ñepp xamné jigéen yi fi Sénégal machallah lepp luy ay secret de femme machallah ñom euh match nañ ci lu ay couture suñu ay yenn modèles yi suñu ay euh, décoration yu ñuy defar fii suñu biir kër yi ñun yooyu yëpp incha allah la ñuy fas yéene yóbbu secteur d' activité nag yu bëri la bu ci nekk incha allah dinañ fas yéene ñu am benn à deux représentants pour ñu dem euh, yóbbu fa li nga xam ne mooy suñu ay euh, suñu ay produits te ñëpp xam nañ Sénégal ak Côte d'Ivoire jëndax jaay bi yàgg na voilà parce que nous avons des produits qui sont utilisés, tout le monde sait le cacao bi euh, euh, karité bi seen ay tissu wax wooding te yooyu Inshallah, incha allah dinañ ko fa fekk waaw. Euh, ñi nar Sénégal dem Côte d'Ivoire dina nekk presque une vingtaine. Nous, fas yéene jóge fii dem Côte d'Ivoire parce que bu ci nekk bëgg minimum au moins mu am deux représentants ñu fas yéene fa fekk tamit yeneen exposants ivoiriens waaw. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.